pour tas yeewi dëgg loolu nag ñi ci biir yeewi gi gaa yi ngi leen di menacé xanaa xamoon Ousmane Sonko bi mu demee ba yem Tambacounda gaa yi seenu yéene xam nga lan la woon waaw arrêté ko moog ay garde corps ndax cuudaayu dëmm la waaw bëgguñu woon mu continuer ca campagne yooyu moo continuer ba léegi moo tax démb ma def benn démenti am ñu bari ñëw ne ah nii kay la mën a demee man fu may laale man bu ñu ne woon sax ay député PDS sax ñu ne waaw comme que ñun Ablaye Wade mooy suñu baay. Mhm. benn carte membre laa mos a jënd bi ma nekkee lycée naan damay politique muy PDS. Mhm. parti socialiste man fan laa leen xamee fan laay laaleeg ñoom ak ban journaliste laa téléphoné moon et puis xam nga paasal. Mhm. cuune sax mënta yegg yow nga ne da nga bëgg ay député ba pare. waaw xam nga la voilà. am nombre de députés. am nombre de députés nangam. toog ci télé rajo wala woo journaliste naan ko am naa six députés. PS. waaw dafa am yenn yoo xam ne yéen wul maanaa waay sa waay. man ma toog naan am naa six députés PS loolu bu ko nit liiree sax xanaa dina ne waa mais kii moom kii kii kii loolu bu ma ko sax waru ko sax bind. parce que war na wax ne non lii yéen wul sax maanaa. nit ku bëgg ay député di wut député pour ñu voteel ko ci poste président assemblée nationale toog naan ci nguur gi am naa fa juróom-benni député loolu est-ce que loolu loolu ça sonne mal à l'oreille. wala xanaa boo ko amoon sax di nga ko xanaa boo ko amoon sax di nga ko nëbb bañ yegg ca ga. wala bañ yegg ci cappaandaw la. waaye nga toog ci réunion naan ay waa PS et man PS dama leen a xam moo tax man seen communiqué bi ñu génnee. naan yaay boo yoo Ahmed Aïdara bu ñu sàgganee nañ ko yóbbu ci yoon mais man maa leen war a yóbbu ci yoon. Mhm. parce que ñoom mosuñu gis fi ma waxee. te man gis naa ñoom fi ñu waxee bu dee diffamation man waa man maa leen war a porter plainte ne dañ ma sosal ñoom waa parti socialiste waaye ña fa nekk ñëpp mais réew ma leen de waa PS yooyu noonu les signataires là les signataires xaw ma cinq députés Aïda Sow Diawara ci boppam man laa fa mere koo xam ne moo la juddulu yar la ba nga màgg moom xam na man man maay kan man man Ahmed Aïdara man bu dee loolu man maa ko ay Aïda saw Diawara war na ci xam daal mais gis nga yooyu xeetu tas yeewi bi la noonu rek mais waa PS tamit bëgg nañ wan bëgg nañ wan waa APR ne leen ñin duñ leen trahir waa lan moo xew ba ñoom ñuy justifié wu hmm. Aïda Sow Diawara bii mooy deuxième fois muy justifié wu hmm. xam nga njëkk na fi génn ci benn journal ne waa yeeyu waaw ñi ngi may woo ah di ma di ma di ma di ma kii ñi ngi may woo pour ma ñëw ci ñoom mais nee naa leen du ma dem Aïda Sow Diawara ban yeewee ko <laughs> mais boobu il fallait ñu def yooyu pour Macky Sall ci boppam. Mhm. jagle leen ay vice président ne ah ñii ñoom gore nañ kat kon waa waa yeewi waa yeewi ku ñuy woo ci waa Bennoo mm. ñoom ñoo am seeni problème mu bopp te le 12 le 12. Mhm. Sénégalais dinañ xam ne Macky Sall mii amul majorité. incha allah ñoom waa PS nag dañ leen koo jiin waa APR ñoo def manipulation boobu. pour waxloo pour waxloo pour waxloo waa PS déggoo ma de benn kilifa nee na ma derrière cette manipulation la APR moom moo ci nekk c'est le régime ñoo bëgg a waxloo waa parti socialiste parce que wóoluwuñu leen ak seen mbokk socialiste yële <laughs> attention temps yële passé dañ doon wax naan Khalifa Sall mi ngi dox ay ay ay député mhm. ni Macky Sall di doxee ci waa Yewwi noonu la xalifa sàll tamit di doxee ci seeni député léegi xel yëpp dem ci waa parti socialiste. Mhm. waa kër Macky Sall yi wóolootuñ waa PS. xam nga li ma dañ leen sàndi noonu mépp mel ni jën jën yooyu nga koy sànni noonu. waaw lañ leen sànni. ñoom waa PS nag il faut ñu seetal seen der ne yaay booyoo waaw Ahmed Aydara nee na yéen maa leen war a plainte bu nekkuloon Aïda Sow Diawara dama leen di plainte. Mhm. te moom nag moom sax nag communiqué ba moom moo ca warul woon bokk waaye jël sa yaay nag di ko yóbbu tribunal daa ñaaw rawatina yaay joo xam ne yàgg ay doomam yenay liggéey dëgg loolu dëgg mhm. doomu Aïda Sow Diawara laa fekk ci mairie bu waaye mu nekk secretaire généralu mairie ma ne ko sa yaay dama koy yóbbu tribunal kooku bu amee jom sax war a démissionné wala war a geer ak man mhm. PS ci boppam ñoom seen bopp <laughs> la waa APR wóoluwul loolu mooy cool hmm. waaye ñun luy yàq luy yàq yeewe yi ñun duñ ko def bi coowu yeewe bi njëkkee am ci affaire u ay investiture yi am le groupe des neuf génn di kaas man kenn duma dégg ma kaas man amee ay parce que dama naa lu naqari Macky Sall neex na ma mhm. lu neex makki sàll naqari na ma kon Macky Sall du ma dégg mukk man ne yi di kaas di xas ñoom xalifa ak ñoom Sonko investiture yi waa PUR léegi mu ne très bien ña ngay rayante du ma ko def. Hmm. te kuy am lu ma mitti ci jamonoom man nga doon dimbali. dañ ne woon deux tiers leader yëpp nañ leen dem ca département yi ñu bëree bari demuñu man ma risqué dem ca département ba yàlla dogal ma am ndam. Hmm. mais dama ne muut noppi. sama demande yi ma jëloon dugal fa suppléant sax awma ma mais kenn dégguma ma kaas. parce que lu yàq yeewu bi du ma ko def barki démb bi ñu ne damay def déclaration pour wax ne candidat laa Khalifa Sall téléphoné ma ne ma bu leen def ay déclaration sinon dynamique bi mën naa yàqu ma takkaat samay bagage ndànk annulé ko parce que Khalifa Sall il président de la coalition la conférence des leaders ma woowaat Ousmane Sonko mu ne ma mbër bu ñu def ay déclaration ma tegaat lépp ci suuf man lu coalition bi ne ci laa ne lu koy yàq duma ko mës a def te maa ca gën a nekk xale mhm. la conférence des leaders samay kilifa ñoom ñoo fa ne damay toog nag di jël parole de mais normalement bu dul woon politique sax waruma jël parole dama war a toog ne pat parce que samay kilifa ñoo fa ne fu ay Habib Sine ay Ousmane Sonko ay Khalifa Sall euh, euh, nu euh, ay Malick Gakou mhm. ay Aïda Mbodj dama naan pat toog mais nag bu heure réunion jotee moom dama fay jël parole di fa wax. Mm-hmm. ah oui te bu heure wax dëgg jotee moom dama ko naan fa dajji wax ko fa jóg dem waaye toog naan ay xaw ma am naa six députés yu nekk PS kooku mën naa koo cuunee man. Mm-hmm. wala ñi naan ñi naan nag eh, réeroo mën naa am sa digganteeg Bart. non non non benn réeroo non mm-hmm. <laughs> am. réeroo fu muy am. waaye <laughs> yow yooyu. yooyu ñoom daal li leen tiital. Mhm. liñ foog du loolu. problème bi du loolu. liñ foog du loolu de. wallaay liñ foog mooy le douze. <laughs> Macky Sall moo la gën a xam ne la présidence su assemblée nationale. Mhm. le douze. du ko mhm. gañe. incha allah allahu rabbi. déggoo ma de benn député la rawee gars de gars bàyyi loolu xel de benn cundum. te kam leen nar a proposé nee na yaay boo yow pour seen candidat xaw ma seen candidat. Mhm. gars yi ànd ñoo moom Macky Sall ci xat-xat wii la toll. Mhm. waxul woon ne waxul woon ne dañuy bàyyi ba dañuy bàyyi ba assemblée bi jàll <laughs> mu doog a nommé. Mhm. premier ministre loolu la ñu wax. oui tey la la la. tey la la dë. nañ dem ba fii la set la set ak le douze bu jiitu. la set. jërëjëf Chérif. xam ma bàyyi xam bàyyi sama mag ji mu daal di nuyoo nag. waaw waaw ah, daal di nuyoo téléspectateurs yi nga xamante ne dañ koy laajte saa su ne euh, la plus belle.